pour le euh, discours Ousmane euh, sur le plan politique non, vraiment pour dugg ci comme Birame l'a dit cest à c'est un chef de parti il est candidat ça c'est établi mhm. il faut que pouvoir bi nangu ko lool c'est un chef de parti il est candidat il est influent mm -hmm. bon deuxième euh, niveau d'analyse c'est que l'opinion soo xoolee Ziguinchor quand même ba ba ba Koungheul bon pendant deux trois jours presse bi su Sonko la ñuy wax en démocratie mënuñu am baromètre bu ëpp presse presse yi lu ñu yeewoo génne ko sa veut dire que c'est ça l'actualité parce que c'est l'opinion qui pense comme ça mm-hmm. donc ça aussi euh, du caravane bi rek ça il faut que le le nos ministres et nos gouvernants quand ñu xam ne que euh, c'est pas le fait de faire une caravane c'est le fait d'être porteur d'une opinion mais nit ñi ñu ngi caravane depuis des années et des années mais mobilisation usman Sonko bi mu am c'est c'est ça le, le, le leader national que mu nekk Ziguinchor wala mu dem euh, Kolda wala mu dem Tamba wala mu ñëw Ndakaaru bon on l'a vu hier mm-hmm. hier sax defe naa daal bu ñu bëggoon mesurer le discours de Ousmane Sonko Ousmane Sonko tout ce qu'il li muy wax ni mooy que euh, ñu bamtuwaat ñu bamtuwaat ko mooy que am na liberté li nga xam ne constitution moo ko may loi bi moo ko may mm-hmm. et je disais tantôt que il faut respecter il faut respecter l'adversaire et jusqu'à présent loolu mooy problème nguuru Macky Sall il ne respecte pas ses adversaires et ça si tu respecte soo respecté wul sa adversaire mais ton adversaire il peut pas te il peut pas te respecter mm-hmm. ah, je pense que problème Ousmane Sonko bi muy wax que il a des droits c'est vrai que chef de parti c'est un leader mais suñ ko respecté woon en tant que leader tension bi dina baisse. maanaam nit ki lu mu la jox rek loolu nga koy delloo. c'est ça la politique chez